ñuy bàyyi xel ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew seen émission sur la question euh, comme ni ngeen ko baaxoo euh, gisee fan yi yëpp ñu ànd ak yéen ci lu jëm ci cadre euh, congrès bi nga xam ne daayira bi di wilaya ñoom ñoo koy amal fii ci dëkk bu sell bi di Touba bi la yoon nag nekk neuvième édition bi ñu koy amal bu ñu waxee nag li nga xam ne daayira wilaya di mbooloo moo xam ne kenn dootu ko présenté ci yoonu murit waaye itam ci réew bu Sénégal bu ñu waxee itam congrès di ndaje moo xam ne day dajale mbooleem membre yi nga xamante ni ci boobule daayira la ñu bokk mu nekk itam ndaje moo xam ne ay junni junni doomu aadama daf ci teew kon yaakaar naa ne waajtaay wi day nekk loo xam ne lu am solo la tax nag ñu daal di séq waxtaan ak kàngam yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk lu jëm ci saytuk daayira boobule ak doxin wi nga xam ne moom lay moom lay doxee ba jamono ji nekk maa ngi toog nii ak sama ndeyjoor Serigne Cheikh Diop xam ay kàngam lañu ci daayira bi yaakaar naa war ngeen a miin kanamam ci li nga xam ne moom moo jëm euh, ci euh, daayira wilaya euh, ngir lu jëm nag ci waajtaay wi Serigne Cheikh tey ma bëgg ñu dugg dëgg-dëgg ci daayira wilaya sosin wi ak doxin wi laataa ñu ñëw ci importance bi nga xam ne ni congrès bi am na ko laataa ngay nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñu seetaan ñu dugg ci biir waxtaan bi. jërëjëf Soxna Awa ñu ngi lay delloo nuyu bu baax di la ziar di ziar xalifa général des Mourides. di ziar njabootu Sëñ Tuubaa gi yëpp ak cheikh yi yëpp di ziare aussi kilifa fédération bi yëpp itam euh, laaj nga laaj bu am solo muy daayira wala surtout wilaya ak euh, naka la soso ak yu ñu demee loolu jàpp na lu lu mat xam la ndax mbir mu ne ñaanee xam histoire dana tax dëgg-dëgg nga xam jubluwaayam daal moom wilaya nag lu fi yàgg la ndax euh, xam nga ne lislaam day diine bennoo lislaam ci nature am ci am njàngaleem ci taarixam ci ay ponkam dafay jàngale lépp lu benn la jullit ñi te itam naka jekk yoon wi nga xam ne moom jëm si borom tabaaraka taala wenn rek la mos a doon te mooy lislaam yonente bu mos a yónni itam ci yoon war rek la lay yónni mooy nga woo nit ñi pour ñu ànd nekk benn di jaamu benn bor bu yàlla. loolu itam mooy wéy rek ba ci suñu sang bu tedd bi Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu moom itam bi mu ñëwee fekkoon na réew mi am nu mu doon doxee ndax ñi ko jiite woon ñu ngi doon jël seen am na ñoo xam jëloon nañ seen jaasi di jihaat ngir yaatal lislaam mais moom dafa tànnoon tekkiwul ne dafa amuloon fit wala dafa amuloon mbooloo mu àndal pour mën a def ñii ñi ko jiit doon def mais dafa tànn yoonu jàmm ak yoonu defar nit parce que l'essentiel mooy defar nit parce que xeex ak noon bi faagaagal ko rey ko sax dëgg la baax na mel li ëpp solo mooy defar nit ki ba mu mën a mucc ci pexe noonu Sëñ Tuubaa loolu moo doon mission ba tax mu am ci réussite bu toll ne bi mu ci am moom itam léppam boo ko jàngatee dafa yaatal maanaam dafa woo ñëpp ndax al muridiya jullit bu ne mën na ca gis boppam mooy ki ma jëm ci suñu borom taar ko temps la koo delloo yàlla delloo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ab ay dëkkam la moo xam ay ay ay doomam la moo xam ay téereem la lu mu ma a doon rek daf ko delloo yàlla delloo ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lépp day firndeel rek ne ndekete dëgg-dëgg liggéey bi mooy liggéey ci lu benn la jullit ñi loolu dëgg-dëgg mooy liggéey bu wóor bi te wér ndax suñ borom tabaaraka taala ni mu diglee julli diglee woor diglee natt azaka ak yeneen ak yeneen noonu la diglee aussi pour ñu ànd nekk benn loolu mooy wéy ba ci Cheikh Mouhamadou Moustapha bi Sëriñ Tuubaa jógee mu wutu ko moom itam sëriñ bi mu dem bàyyee na ko ay projet euh, surtout nag benn projet bi ci gën a mag muy yoonu muy jumaa ji ndax sëriñ Tuubaa bi mu fi nekk sumboon na liggéeyu jumaa yi ci loxol boppam ay ah, yàlla dogalul mu àgg ci loxoom waxoon Cheikh Moussa ne ko sama loxo damm na ci ne sa loxo damm waaye Cheikh Moussa laata muy engagé liggéey boobu itam dafa fexe ba benn la yoon yi ndax bi sëriñ Tuubaa jógee itam vraiment xol yu bari gëlëmoon nañ xel yu bari jaxasoo ndax sëriñ Tuubaa moo toll daal. waaye moom ca mat ga ca dal ga ak itam effacé gum effacé boppam xamal ñëpp ne leen man kontu ma Sëriñ Tuubaa ak ndigalam moo kont loolu may na ko mu mën a nos yoon yi soog a soog song chantier sëriñ bi moom ci boppam itam dafa naan wax ne na ngeen boole seen bopp mu nekk benn ndax li fekk nekku leen benn ci lu tax ngeen doon benn rek ci lay nekk. te loolu ba mu koy wax woo ko woon waa këram rek wala waa Darou Khoudoss mais boobu mooy xalif général des Mourides donc kon bennoo bi dañoo war a am gëm-gëm ci ne mënta ñàkk. mënta ñàkk mooy liggéey bi dëgg dëgg dëgg donc donc Cheikh Moustapha ci loolu doon dox ba yàlla dogal mu jóge fi bi mu fi jógee itam talaata laata mu fi jóge sam sëñ Cheikh radiyallahu anhu ci ubbi gum ubbeeku gum teel ubbeeku ci jamono ak may gu suñ borom may mu teel a dégg jamono am vision bu sori aussi gisoon na ne Sëñ Tuubaa woote na ñëpp wuy si nañu Cheikh Mamadou Moussa aussi taxawal na yoon yi mais il faut mu am benn organisation mënul ñàkk. ndax mënuñoo dem noonu rek comme ça te organisation ba ci gëm nag ba ci gën mooy nga teg ko ci yoon woo xam na ni day ànd ak jamono di dox di dem moo waraloon mu ci nekku Cheikh Moussa rek ci la amoon mébét boobu ba taxaw njëkkoon taxaw li ñuy wax diwaanul Mouridina te boobu wax dëgg yàlla yàgg na ndax 41 ak 42 boobu mag ñi boobu xëy na di jënd ay carte di joxe xaalis ñu lay joxe russi boobu xëy na loolu xamuñu ko ba tax na loolu taxul woon mu am ci réussite bu am solo bi Cheikh Moussa jógee itam. toog na vingt ans yoo xam ne nii vraiment waxaatul ci loolu dara xëy na retrait stratégique la woon wala mu doon xalaataat ba xam wan yoon la war a jël daal pour moom li nga xam ne moom la bëgg te mooy fexe ba jullit ñi nekk benn na yoon wi. loolu aussi mi ngi doon xalaat moo tax en 1965 ci la woote woon ci njaareem woote bu rëy laaj mag ñi ne leen ndax mu fi jógee ba léegi xam ngeen sama bëgg ñu ne ko ah loolu da xanaa moom nga tontu ñu ci rek mu ne leen bi fi bi fi Cheikh ba léegi. xamu leen sama bëgg ndax dafa am lu mu fi bàyyi woon ma waroon koo yeggale ci laa ne woon léegi nag dama am sama bëgg am sama jublu te mooy daayira mu ne leen nag daayira lu fi yàgg la lu fi yàgg la mu ne leen daayira mbóot mbóot mi mbóot mi nekk ci biir moom li mu bëgg taxawal moom suñu Cheikh nee leen mbóot mi nekk ci biir yàlla mi ngi ko defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñëw koy jaasiya mooy yonent bi xam nga ne lislaam mën nañoo wax ne jaas yi bokk na ci li ko yaatal ndax kuréel bi njëkk a gëm am na ñu taxaw leen du ngeen du fi du fi amee ñooñu jàmmarloo ak ñoom xeex ak ñoom ba am ci seen kaw ndam loolu moo waral lislaam yaatu ba nag ni mu ne mbóot moomu mbóotum daayira mi muy waaj a digle yàlla mi ngi ko defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ñoo koy jaasi loolu du wax bu ndaw te ko wax itam du ko ndaw am na cër ci suñu borom muy sëñ Cheikh radiyallahu anhu mais mu wax ne itam euh, ki nga xam ne mooy xaadim rasul mbóot mi nga xam ne moom laa leen di moom moom moo nekk ci daayira te ma koy digal itam yàlla mi ngi ko defaloon ci xalima ak dàmm ndax sëñ Tuubaa ci boppam wax na ne moom ci ragal yàlla doon jihaat ak xam-xam te bi mu demee ci tukki bi itam wax na ne xalimaam ak daam ci la doon jihaat ak tubaab bi ba ba ba am ndam ci seen kaw. ba pare itam confirmer ne man karaamati xattu yat yi moom sëñ Tuubaa ne sama karaama mooy sama mbinum loxo donc loolu day firndeel ne euh, daayira mii kat mi sëñ Seex taxawal moom vraiment du du du du bokkut ak ni ko jàpp ne ci kaw. donc kon mbóot mës mbóot mi Sëñ Tuubaa euh, yaa suñ borom mi nga doon Sëñ Tuubaa ci xalam xalima ak daa mu ne bi Sëñ Tuubaa jógéenam Seex Muhammadu Mustafaa suñ borom mi ngi ko defaloon mbóot mi ci ñaw koy alleer yi alleer xam nga ko mooy li ñuy bàyyee ndax Sëñ Tuubaa chantier bi mu fi bàyyee muy jumaa ji ci période boo xam ne nii vraiment jamono ju tar la ñu ngi jege ñi ngi ñi ngi jógee 14 18 ci guerre mais ku nekk dégg na la crise des années 30 la grande dépression nga xam ne booboo adduna si non seulement waxuma la africain yi mais tubaab yi sax dañoo daanu dara amul ci moment yooyu ci la Cheikh Moustapha engagé liggéey jumaa yi loolu sëñ bi lu lu lu yéeme la ndax loolu kenn mësul xalaat booba sànc boo xam ne bu doon suñu jamono c'est des milliards te dara amul nga song lu toll noonu mais nga song bu a noppi sax ñu ne la bala ngaa am jumaa da ngaa am raay mu mu jël engagement ci am raay teg jumaa ji ne la fas yéene raay am ci période boobu ci moment yu difficile yooyu te loola xam na ne toog di jàng alxuraan mayu ko ko toog di wérdi tur yàlla mayu ko mais jóg créer ay moyens mooy tax loolu mën a am moo tax mu jóg dugg ci taalibe yi ginnaaw bu mu sancee ay dëkk yu bari fi murid yi nekk mu dem jox leen ndigal ñu sanc ay tool yi àllarba tool àllarba bi ñu ko waxee mooy tool boo xam ne ni bu àllarba ñëwee ñëppay bàyyi seen tool ñëw dajee fa dafay ñore loolu bu sottee ñu jël ko jox seen mu sàmm ko ci liggéey loolu moo taxawal jimaa ji muy ñàkku murid yi Euh, lu am am solo la ñu koy fàttali pour ñu xam ne suñu jumaa ji jumaa ji ko ëpp valeur amul c'est parce que ñaq wi ko tabax ak période bi ñu ko tabaxee mu ne mbóot mii euh, mu ne nag daayira mi mu leen di waaj mbóot mi nga xam ne moo ci nekk suñ borom mi ngi ko def seen mu saaj ñoo koy aller yooyu donc euh, loolu mu ne nag man loola nga xam ne moom la yàlla defaloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca ñëw koy jaasi defal ko Serigne Touba ci xalima ak daa defal ko Cheikh Moussa ci ñëw koy aller yi man loolu suñu borom defal na ma ko ci carte agro carte agro xam nga loola euh, xëy na luy naqaree dégg lay doon ndax carte Agro-Sil bu ñu ko waxee ay kayit la yu kii mais boo moom lim boo jàngatee li ñu ci bëggoon dëgg-dëgg mooy xam na ne xeex moom yaakaar naa pour yaatal l'islam xëy na excluruñ ko completement ci diine ji mais amatul daanaka jihaat deuxièmement sëñ Tuubaa moom ni mu doon jihaat yi xel daal loolu moom da caa wét kenn kenn mosu ko caa fekk kenn dootu ko ca faj bu dee Cheikh Moustapha tam bay itam bon gis nga jamono yi dem nañ ab diir sécheresse am mbay mi nangootul mais il faut am benn alternative bu am te chantier Serigne bi daa war di wéy te léegi jamono ubbeeku na non seulement booba bay rek fi nekkoon mais léegi nag nit ñaa ngi commerce nit ñaa ngi def leneen nit ñaa ngi ubbee atelier moo tax mu mu mu mu nekk loolu suñu borom mi ngi ma defal ci carte Agro si ngir ki mënta bay dem ci ca ba ji di bay wala nangam ak nangam bu jëndee ci carte yi bu ñëwee. bu joxee xaalisam ne lii maa ko def ci liggéeyu Serigne Touba bi ñu daggal ko reçu mu garde reçu boobu di am lu mu symbolisé carte bi aussi am lu mu symbolisé parce que waxoon naa ne liggéey bi dëgg-dëgg mooy liggéey ci lu benn la murid yi te yàlla dafa ne innamal mu'minuuna ixwa maanaam jullit yëpp ay mbokk lañu te fa aslihu bayna axawaykum da ngeen yëwanal seen i mbokk te bennoo moom du lu ñuy ñaan yàlla muy nangu nde yàlla na yàlla na yàlla na bennal rek mu nangu déedéet du luy jege asamaan du lu ñuy werd du lu ñuy lu ñuy lu ñuy jënd mais dañ koy tabax dañ koy liggéey ndax suñ borom moo ko digle mooy mooy li gën a jafe gis nga lislaam tey jafe-jafe yi mu am lu ko waral tasaaroo gis nga yoon wi aussi doole jaa ngi fi mais dafa doole yi dafa tasaaroo loolu il faut ñu il ñu il ñu oser wax ko yoon wi impact bi bi mu war a am poids bi mu war a peser ci réew mi ci àdduna si des na c'est parce que doole dafa tasaaroo kuréel bu ne ma nga ci ab ruqam di liggéey liggéeyam te ñu waroon a def benn sàppe ci gannaaw Serigne Touba ndax nag lépp Serigne Touba la. mais ak foofu dinaa la ci dagg tuuti euh, sëriñ bi est-ce que phénomène boobu tamit laalul biir daayira bi parce que bu njëkk wilaya kese lañ daan wax léegi am na beneen kuréel bu jugee ci biir wilaya génn même tamit parallèlement ne mel ne dafa xaw a séparé wu ak daayira bi est-ce boobu laalul tamit daayira bi. waaw phénomène yooyu mën naa wax ne daayira yëpp lay laal parce que mbooloo muy dox lu yàgg ñaare du du ñàkk xëy na ay ay ay. ñu dem ba yàgg ñu gis ne xëy na yoon bi nangam nangam ñu bari seen yoon loolu moom naturellement àdduna noonu lay doxee quoi amul benn problème mais dëgg-dëgg li am solo mooy objectif bi wilaya fixé woon moom ba léegi mi ngi ciy dox. donc loolu xam naa dinaa ci ñëw après mais fi ma tolloon mooy léegi euh, carte bi dafa symboliser innamal mu'minu ixwatun jullit yëpp benn ndax moo taxoon mu wax ne ku ku dagg boo bu ma daggee ci carte bi yow nga daggee ci carte bi da nga ma def ne ko bokk ndey ak bàyyi. te loolu yàlla moo ko digle yonent bi sallallahu alayhi wasallam confirmé ko wax ne kenn ci yéen du gëm wala ngëmam du mat lu may dafa bëggal mbokkum jullitam ni mu bëggal boppam moo tax mu bëggoon nag baar baar yi ñuy yi ñuy séparé yi ñuy séparé muy ay sëriñ muy tarixa muy ay couleur muy ay lakk muy ay ay ay ay dëkk sénégalais nga doo sénégalais yooyu dafa bëggoon ñu écarté ko nga xam ne carte wi tey mooy symboliser innamal mu'minu ixwa ku ci jënd nga jënd ci rek jàpp na ko bokkal ndey ak baay dootul toppatoo ba xam fii la bokk wala faa la bokk loolu moo doon représenté woon carte wi donc objectif boobu la sëñ Cheikh amoon pour benn la jël ñi mais boo boo bàyyee xel aussi na ko tuddee woon aussi jamono yooyu mu ittihaadu atbaa'il xadim li taawuni wa tamasuk bi dina muy benn ñi topp Serigne Touba benn yàlla ko dégle li taawuni ngir ñuy dimbalante te yàlla tax yàlla moo ne wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wala udwaan kon dimbalante ndigalu suñ borom la wa tamasuk bi diinil xayim te mooy ci diine ji mooy ci diine mooy lan fexe ba diine ji ñu sauvé ko du rëcc te loolu ndigalu siñ borom la ndax moo digaloon yonent bi salaam ne ko fastamsik billazi uhiya ilayk na nga mooy ci li ma la wax yi muy alquranul karim innaka ala sirati mustaqim ndax yaa ngi ci yoon wu loolu mooy dëgg-dëgg euh, symbole bi nga xam ne mooy carte yi loolu la symbolisé muy mbag mbokkoo ak bennoo dimbalante te mooy ci diine loolu mooy wéy sëñ Cheikh di ci dox ak mag ñi mais taxuloon mag ñi dégg ko nag vraiment mu tegoon fédération bi aussi ci ni ma la ko waxee léegi ci doxinu àdduna ndax 65 la ko taxawal 67 la am récépissé ñu reconnaître ko légalement juridiquement mu am ay papiers yëpp waaye mu wutal ko statut aussi wutal ko réglement intérieur donc kon gis nga ne kon méngoon ak jamono te jamono jooju loolu xewul woon mais nam mu ko tuddee woon aussi fédération des groupes entre ah, ni mu ko tuddee ci français fédération des groupements religieux la tudd et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba muy fédération bi lëkkale kuréel yi aju ci eh, kuréel diine yi aju Serigne Touba. en 65 boobu benn kuréel bu formel bu taxaw amut kon gisoon na ne ci kanam tuuti kuréel yi nañu bari mais mënuñoo ñàkk a fédéré wu pour vraiment yoon yi mën a am résultat. te loolu actuellement ñor na comme ni nga posé question bi te pour yoon wi am résultat il faut kuréel yëpp fédéré wu. loolu bu ñu ci duggee sa kon objectif na ko kon parce que gis nañ ne wilaya ñi bokk Daaru Xuddoos rek ñoom ñoo ñëw bokk si te bu fekkoon te li ma dégg ci sa wax euh, dégg naa ko dëgg-dëgg mooy sëriñ bi xoolu woon ay ñu bokk fii ak ñu bokk loolu sax barrage yooyu sax la bëggoon dindi kon heure bi fekkoon na léegi mbooleem daayira bu aju ci sëñ Tuubaa léegi doon benn kuréel. dëgg la mais foofu aussi ma dafa la fi benn leeral. li wilaya aussi këral nañ ko nee nañ Daaru Xuddoos dëkk mais demeewul tey am boo demoon suñu secrétaire administratif au niveau de la section de Touba am na ay ñu ci bokk ñoo xam ne waa Daaru Salaam lañu am na ci ñu bokk waa Daaru Musi lañ man boo demee sama village man sama cellule de base sama daayira Yumnul Hayaat te Kelal Diop am na ay alpha ci bokk am ay taalibay Cheikh Sadibou lañu mbooloo mi ñëpp a ngi ci de ce fait comme que Daaru Xuloos ki ko sos dëgg waaye loolu moom vraiment maa ngi ci dara ci la xamal ne mbooloo mu ubbeeku na boo demee Thiès am nañ ay membres yoo xam ne ay tijaan lañu boo demee Dakar am nañ membres yoo xam ne duñ ay murit donc côté boobu moom vraiment ubbeeku nañ ci bu baax a baax a baax kon objectif bi ñu ngi koy attendre bu baax a baax a baax ndax wax naa ne la bennoo yàlla moo ko digle mais moo gën a jafe dafa jafe yàlla moo ko moo ko jafeel gis nga yàlla lislaam ji mooy diinam inna diina inda laay inna diina inda laay lislaam yàlla ne diine fi man mooy lislaam nee na sax du ma reconnaître beneen diine bu dul islam mais xoolal lislaam ji tey mooy dëgg pur mais mu ëpp ay jafe-jafe. lii itam rek day dëgg pur la maanaam li ma la wax ni mbóota ci mbóot mi ko sëñ bi taxawalee loola moom du dañ ba ilaa yawmi diini jafe-jafe yi nag mënul di ñàkk mais ala kulli al ñun ñi ngi rafet njort ci ne danañu atteindre résultat bi sëñ bi visé woon. parce que mag ñi bi ñu fa nekkee ñoom xoolu ñu woon taxi yi ubbeekuñu woon aussi mais ñun actuellement ubbeeku nañu. ñi ngi ñi ngi ñi ngi collaborer ak ñëpp ñi ngi véhiculer aussi message sëriñ bi xëy na mën nga ñëw këralee mën nga ne mbir mi mbirum Daaru Xudoos mais boo ñëwee ci suñuy message ak suñu doxalin ak suñu waxeen vraiment doo gis loolu la. que naka ngeen di atteindre objectif boobu objectif bi nga xam ne bëgg ngeen ko atteindre comme ni ko sëñ bi jàngalee woon naka ngeen koy naka ngeen koy atteindre. waaye ni ñu ko atteindre mooy siiwur yoon wi mu tracé rek topp yoon wi nga xam ne moom la tracé te mooy dajji baaraas yëpp parce que yow yow sa bopp gis nga sa bopp euh, yaakaar naa ay trois ans ci gannaaw exposé nañu fii El Hadj Malick Sy ci diggu Touba te a jàpp naa ne murid yi ko osé bariwul te loolu fikra bi muy pensée bi xalaat bi ci ñun la jege woon Daaru Xudoos porté ko loolu aussi dañ ci doon wane rek que ne ñun amuñu frontière ci Daaru Xudoos amuñ ko ci yoon wi amuñ ko ci lislaam yi at mu jot aussi duñ fa nekk sax màggal yi di Daaru Xudoos yi mën naa ne plus de quinze ans ngi ni yoo xam ne bu màggal jotee duñu waxtaane Cheikh Moustapha de ci keneen la ñu exposé yow xam nga ci loolu bu fekkee yaa ngi ci ñëw at mooy dañuy tànn benn kilifa exposé ci moom génn ci moom benn document tasaare ko lépp pour wax ne ñun nekkaluñu fi rek pour Cheikh Moustapha nekk fu ñu pour Cheikh wala pour Serigne Mbacké mais dañu fa nekk pour yoon ñu koy mooy suivre yoon yi nga ne moom la Serigne Cheikh te mooy ñu ànd nekk benn di dimbalante rek te yàlla tax te itam mooy ci diine suñu borom tubaab ko temps laaj donc kon noonu la wi noonu la fédération bi taxawee ba 1987 Serigne Mbacké soxna loo fekk Serigne Cheikh làqu na mu gis ne dox yi ni mi ngi soxe parce que ay mag rek ñoo ci nekk te dox bi mënul ñàkk ay mag ay ay ay xale ak i jigéen te jigéen ñi aussi il faut ñu occuper leen parce que jigéen yëngu la xam te boo leen canaliser wul ñu yëngu ci li nga gërëm mën nañoo yëngu ci faneen moo waral mu créer wilaya muy wilaya femme ak wilaya jeune bari na ñoo xam dañuy dégg wilaya jàpp ne day kuréel bu taxawee ne fédération bi taxawee ne mais wilaya ci biir fédération bu sëñ bi la samp di dox ci statut fédération bi di dox ci réglement intérieur fédération bi di jaay carte fédération bi. loolu mooy continuer ba dëgg ni macha allah nga xam ne tey wilaay tubarkal la fekk ak deux jours wala fii ak gannaaw suba lu mat fukki section ak juróom-benn nañ fas jógee ci biir réew mi ak bitim réew ba Gambie ba Europe ba États-Unis loolu day firndeel na mbooloo mi macha allah mi ngi yaatu te itam doy na résultat sëkk rek ci ne sëñ Cheikh moo indi daayira te tey foo dem ci réew mi foo dem ci bitim réew ña ngay daayira kon képp kuy am képp kuy daayira rek amel na njëgal sëñ Cheikh donc loolu rek résultat te tey lii dox ci yoon yooyu ku néew. ci ay résultat ci organisation daayira la bu daayira jóge ci yoon mu jeex takk la leen nekkatu donc kon ñun ñi nga xam ne ñoo tee pensé Serigne Cheikh boobu xalaatam boobu ba tey am ñu ci jariñu sax xëy na ba gën ñoo euh, euh, am am fu ñu rawee lool yëpp dañ koy nangu dañ koy nangu c'est parce que xam ne rek lépp alhamdulilah lu waaye defee itam fii rek la ko tibbee loolu doy naa sant yàlla jàpp naa ne daal ci tënk loolu mooy origine daayira bi muy muy liggéeyub yàlla dara am génnul islam dara am génnul alquran soxna. congrès loolu mooy njëriñam congrès bi ngeen di def. voilà congrès bi xam nga daayira bi ni man ko waxee léegi dafa structuré wu suñu chef ko tekki norme yoo xam ne tey tey parti politique yi syndicats yi association yi mag yi nii ñuy doxee noonu lañ bëggoon doxee mooy lan am say cellule de base di jaay carte am ay instance di ko renouveler di dem congrès loolu la ñëpp bëgg mais ñu bari mënuñ koo am. sëñ Cheikh nag ñun ñu ngi sant yàlla côté boobu moom xam naa ne ñi ci ñi ci dab bariwut moom parce que dama lay dama lay expliquer rek ni ni ni ni ni organigramme fédération bi tëddee pour nga xam dëgg-dëgg lan moo waral congrès mi ngi commencé ci daayira muy cellule de base bon daayira yi bu ñu matee juróom mën nañoo doon benn sous section ñaari sous wala ñett ñu doon section actuellement fii ci Touba ma joxe misaal mi gën a jege man wilaya jeune bi ma jiite am naa 23 daayira 23 cellules de base yoo xam ne ñu ci biir dëkk bi tasaaroo fu ne wilaya femme am 7 cellules de base wilaya femme doon sous section wilaya jeune doon sous section ñu daje doon section daayira par semaine lay réunir sous section muy comité directeur ñu am bureau comité directeur di di réunir par 45 jours te loolu ñu boobu ñu ngi koy respecté section bi bu femme yeeg jeunes yi dajee. ñoom par par deux mois dañuy daje te loolu ñu ngi koy respecté commission yi chaque mardi sept commission yëpp danañu daje tënk li daayira yi di li liggéey liggéey ci semaine bi euh, ci semaine bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu dajale loola. bureau exécutif yi moo xam ci niveau ci base bi la moo xam ci niveau fédéral la aussi ñuy dox par exemple au niveau de Touba avant chaque réunion comité directeur bureau exécutif bi dana daje après chaque réunion comité directeur bureau exécutif bi dana daje donc commission yi kazalik boo jógee ci commission yi euh, bureau exécutif yi ñëw euh, bureau fédéral ñëw bureau fédéral mooy bi nga xam ne moom la si Moustapha Mbacké Astoubouri jiite muy l' ambassadeur du Sénégal en Turquie actuellement moom moo jiite bureau fédéral moom itam par trois mois lay réunir te calendrier boobu aussi ñu ngi koy respecté boo jógee bureau fédéral mu am conseil fédéral nga xam ne moom mooy l' instance supérieure de la fédération nga xam ne moom moo tiim lépp mooy superviser bureau fédéral donc moom itam par un lay dajee un an bu ne dana dajee xool lañ tënkoon ci résolution yi ñu jógee ba ñu jógee congrès 2013 tënkoon lan la ci bureau fédéral def ci at mi mu càmbar la xool changement yi war a amaat ci bureau bi ndax am ñu doxul ndax am na ñu war a soppi loolu chaque année da ko te calendrier boobu ñu ngi koy respecté congrès par cinq ans lay am 2013 ko defoon waroon ko def ci fin 2018 bi xëy na ay am indi ko ci janvier bi moom itam ci calendrier bi congrès ordinaire moom par par cinq ans lay am am na ay circonstances yu am nag ñu mën a woote congrès extraordinaire mais bu dee congrès ordinaire moom par cinq ans lay am moo waral rek ñu tenir benn congrès nii nga xam ne euh, six mille délégués lañ ci woo yoo xam ne ni génnuñu mbooloo mi ndax fédération bi effectif ëpp na loolu mais dañoo tànn six mille délégués yoo xam ne ñoom la tuddee ay congressistes liggéey six mille cartes de délégués fi mu ne nii membre délégué mun a jot na kartam dèjà Touba jot na kotaam ba séddale Taïf kazalik Gambie ñëpp jot nañ seen quota ba séddale mu am aussi cent quatre-vingt-un yoo xam ne ni ñooy liggéey liggéey bi ndax bu ñu nekk congrès fi mu ne Touba bi lii ngay seetaan nii am na ñu ko tuddee congrès journée culturelle Cheikh Moustapha daan am njaareem am ñu ko tuddee congrès mais dëgg yooyu du lii mooy congrès c'est que li ci kaw la ñu gis mais fekk ab réunion la comme ni ma la ko waxee léegi comme daa comme comme comme yeneen kenn ku dafa am calendrier mais moom itam calendrier cinq ans la am pour réunir ñan ñooy réunir mooy cent quatre-vingt-un ñoom jot nañ seeni i termes de référence bu yàgg xam la ñu war a waxtaanee ci commission yi pour beneen ñu comparer 2013 ak léegi lan la fi fédération bi def lu mu fi deful su ko defee loolu la ñuy évaluer xayma ko buñ ci jógee euh, soog a sumb nag lan la ñuy sumbaat le plan quinquennal maanaam fii ak juróomi at lan la ñu fi defaat donc loolu mooy liggéeyu conseil fédéral donc samedi buñ ubbee ba noppi ba cérémonie yi jàll ñoom dañu fanaanee liggéey commission bu huit commission ñooy def ay atelier commission bu ne liggéey ci li ma la wax nii léegi buñ paree ñu def plénière. plénière bu ñu ko defee ñu ubbi débat amendement yi bu ko defee ñu commission yëpp tënk ñu synthétiser ko euh, euh, li liñ ci juboo lépp ñu tëgg ko mu nekk les résolutions du congrès 2019 su ko defee le lendemain ci dimanche ji loolu la ñuy lire nga xam ne mooy suñu programme naal fii ak cinq ans donc loolu dëgg-dëgg mooy congrès lu am am solo la loo xam ne itam vraiment ni ñu koy defee nii néewaa na ñu koy defee noonu parce que ni ñu structuré woo moo doy waar moo ñu bari dañoo wax wilaaya dañoo bari programme dañoo bëgg programme mais du bëri programme du bëgg programme dafa am taxi yi ñu tënk ñi di ci dox moo tax saay toujours nga gis nga ñu gis ñu réunir ñi ñi ñuy dajee di réunir te réunion yi bokkul am na réunion yoo xam ne kii kenn ku nekk ak réunion ba ngay teewee am na lu mel ne bureau fédéral membre ñëpp duñ ko teewee conseil fédéral ñëpp duñ ko teewee kenn ku nekk ak instance ba nga ba nga yem. bu loolu jàppee itam ci structure bi itam ñu am trois secrétariat muy secrétariat def femmes nga xam ne dañoo am seen autonomie daje seen biir am seen i commission ak soxna Ndeye Fatou Mbacké jiitu ko mais mu am secrétaire wilaya des jeunes aussi waaye am secrétaire wilaya adulte donc kon mbooloo mu nosu mu mu mu structuré moo xam ne vraiment ni ma la ko waxee léegi ni ñu doxee moom la parti politique bëgg a doxee moom la syndicat yi bëgg a doxee te itam transparence la ñuy dox ak démocratie ndax dimanche danañ la lii bureau pour wax na la fédération amul benn kenn ku ci mën a wax ak poste bu mën a doon nag jël lépp nag kenn ku mën ne poste bu nekk lu ma jógee amul parce que am nañ pouvoir wàcce ku ñu bëgg a wàcce bu fekkee doxul waaw bu wala wala wala wala liñ ko santoon def ko am nañ kattan pour wàcc ko dañuy dem sax ba ci voté vraiment pour am li ñu bëgg donc kon mbooloo moo xam ne dox ci transparence ak démocratie kenn mënu cee nekk éternellement man du ma wàcc waaye tubaarkalla alhamdulilah jafe-jafe yi mbooloo yëpp dund te moom lay dund waaye ñu ngi sant yàlla tey am yaakaar ci ne trajet bi ñu jël te suñ sax xalan ko moom bu soobee yàlla buñ ko wàccul dinañ am li ñu bëgg ndax itam synthèse l'islam la synthèse yoon wi la te gis nga jafe-jafe yi lislaam am gis nga jafe-jafe yi yoon am li nga question yi ngay posé nii boo ko posé woon ci yoon itam même réponse loolu rek ngay gis mooy tey doole yoon wi am yëpp vraiment lépp ngi fi ba tax lu ba pare mënuñoo dem lan moo xew li ñu yor tey am na ñoo bu ko ba da ngeen gis waaye dem nañ bu yàgg donc gàllankoor bi dafa yaatu daal. kon xam naa signalé que des ci wàllu waxtu bariwul mais juste une dernière question. Hmm. ñaata membre ñaata membre ngeen am yéen effectif bi lépp ñaata la. effectif bi daal. 7000 yi daal tegal na en tout cas xamatuma lu mu tegal nii mais juróom-ñaari junni membre yi moom tagal na waaw 7000 et quelques tegal na waaw bu dee fii ci Touba euh, boo boolee jeunes ak femmes ñu ngi ci 1500 et quelques 1500 et quelques yoo xam ne nii dañuy dagg seen i carte di renouveler régulièrement ko ci ay cellules de base di dox kon fédération bi am na plus de 7000 membre te 7000 membres comme comme wàllu koom yaakaar naa di ngeen ci war a am doole. waaw wàllum koom mais 7000 membres aussi xam nga ay jeune a ngi ci ay ay ay néew doole a ngi ci lépp a ngi ci donc koom mi alhamdulilah lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu soxla lu ne day membres yi ñoo koy ñoo koy jaayante waaw yi ñoo koy jaayante programme bu ñu am aussi gis nga congrès bi bi sëñ bi ndigal li mu joxe mooy yaakaaroon ci kan section bu nañ la sas Touba lu bari lañ ko sas sas taay sas keneen sas keneen léegi nag leneen lu ñëw itam ñu boole ca loola waaye 7000 membres yi aussi da cee bari ay jeunes. ndax man mii fi samay doom dama leen bind waaw te te maay teg leen tegalal léeg-léeg du ma leen mën a tegalal ñooñu aussi da nga leen jël en considération nga xam ne am na i waajur ñoo leen bind ci biir ndax noonu la ko sëñ Cheikh bind woon ku ci bind da ci bind sa njaboot loolu moo war ñu ci bind ñëpp waaye wàllum koom nag taxagul ñu demee ci noonu waaye ñu ngi sant yàlla nag. juste une dernière question mooy gis nañu léegi benn daayira yu bëri di jóg di yëngatu ci lu jëm ci wàllu infrastructure di di màbb jëm ci loolu yéen waa daayira wilaaya ban gis-gis ngeen ci am. waa ñun dañoo am suñu objectif ndax boo demee ci statut bi am nañ juróom-ñaari objectif ñun su suñu suñuy jubluwaay ba ci njëkk mooy fexe benn la mooy fexe ba ñi jàng xam seen diine loolu moo doon yittee seen Cheikh troisièmement mooy solidarité ak entre aide quatrièmement di xeex lépp loo xam day yàq yarum ndaw ñi donc yooyu mën naa la ko juddal kon dañu am suñu objectif yoo xam ne moo ñu tax a jóg suñu texte tënkuñu ci loola mais mbooloo mi sëñ Cheikh ci boppam dafa wax ne roog yi mooy social dimbalante moom ci boppam dafa wax ne lu ñu dajale fii mu ne nii par exemple ñun ñun duñ denc xaalis li ñuy liggéey ci social tey yaakaar naa te yaakaar naa rapport secrétaire général dana ko indi gannaaw suba duñ def ci cinq yëpp social. c'est des millions yoo xam ne tabax na infrastructure parce que ñun li ñu digal mooy bu fi xaalis nekkee ñu gis mbokkum jullit mu këram dara newu fa wala mu feebar wala mu nekk hôpital nañ dem sauver ko donc ñun ci social lañ gën a jooyal suñu liggéey ak jàng ak jàngale mais pas tabax infrastructure te loolu mooy suñu liggéey mooy defar nit dimbale nit te loolu jàpp naa ne loolu bu bu samedi ku déglu rapport secrétaire général da nga ne ñii bett nañ ma ndax jàpp ma ne woon lii moom ñu ngi koy def ci social. te dañ koy def secrètement ci suñ biir ndax ay mbokk taalibe lañ yoo xam ne ni dañoo ànd te yàlla rek tax donc lu ñuy def du jaay ñu koy publier di ko médiatiser donc li li ñeneen def itam lu ama am solo la waaye ñun nag dañoo am suñu objectif am lu ñu tënk ci loolu la ñuy dox te ñu ci amee résultat yu ama am solo yoo xam ne ku ñëw samedi incha allah da nga ko dégg. incha allah jombul ne daañ ko dëgtal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel ci biir réew mi ak ci bitim réew ñuy fàttali datu congrès bi samedi 26 euh, ak dimanche 27 incha allah fii ci tuba euh, ci résidence Khadim Rasoul bi ci garage Dakar fi lañ koy amal 9e édition congrès daayira wilaya ñu ngi leen sant baax leen gërëm yéen ñu doon bàyyi xel leen di daje beneen yoon jërë ngeen jëf.